waaw tey na dañoo duggoon fii Rufisque suñu présidente doole ñu appuyé ñu bu baax a baax ñu dugg ci prison yi fekk fa ñi nga xamante ne ñoom la caabi delloo féete ginnaaw présidente Anta Babacar Ngom Diack def ci lu am solo yëkkati ay don yu bëri andi ko fas yéene na jàppale taxaw leen wane ne ñoom dañoo bokk ci population bi ci askan bi lañ bokk kenn war leen a fàtte ginnaaw moo wane gor la ñu àndal ki ñu àndal mooy garmi kuy toog xelam yëpp mu jël ko teg ko ci jigéen nga xamante ne ñoom la ñoom la caabi féete ginnaaw bay leen xel dara manqué wul yëkkate doom bu bëree bëri nee nañ dem bàyyi leen xel jox leen ko te ñaanal leen yàlla suñu borom fu ñu nekk incha allah rabi du yàgg tuuti ñi génn fa nu mu gën a gaawee ci kattanu yàlla suñu borom. mu ñëwaat ñu ne déet waay ñëw fii ñu may fi ay euh, don de def fi ay dépistage. cancer col de l'utérus nga xamante ne instant bi jigéen ñu bëree bëri ñu ngi koy doxale te yëguñu ko ñëwaat cancer du sein ñu bëree bëri ñu ngi koy doxale te yëguñu ko loolu président Anta Babacar Ngom daf ni ñaax wala ne kenn ku ne waroo toog benn trois mois boo xam ne demoo saytu ji sa yaram te képp koo xamante ne tey am nga ko kenn ñaanul ko kenn nag incha allah rek moom dina la téye en charge ba nga wér ci kattanu yàlla suñu borom. dëgg la nag ki nga xamante ne moom mooy suñu njiit jigéen la présidente Anta Babacar Ngom Diagne waaye di seetaanul ay nawleen parce que ñu ñu ngi ci formation yi ñu ngi leen di créer ay calabas ñu ngi leen di créer ay banques ñu ngi leen di jàppale ci sens bu ne kenn ku nekk secteur bi nga nekk ñu ngi fay dugal ñu loxo beneen bi ci tegu mooy ñoom nañu am taxawaay bu dëgër rek te xam ne ren dañoo taxaw pour fal suñu bopp te dafa jot duñ falee suñu bopp. dinañ génn ànd ak ñoom def ay caravane muy góor ñi ak jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi parce que dañu am leader boo xam ne dafa jaay boppam ñu pare nañ bu yàgg ba ñu génnee ba def parrainage citoyen ak liñ fi def lépp génn premier tour loolu mooy wane ñun pare nañ bu yàgg ñun campagne bu ñu ne woon une semaine la alternative pour la citoyenne ak suñu njiit président Anta Babacar Ngom kooku mooy jël réew mi 16 mois incha allah rek ñu ngi dafa génn ñëpp xeeb waaye bu mu taxawee xam nañ ne nekkul njit ñuy xeeb ndax moom donc mooy benn jigéen boo xam ne moom lañu ñu élire ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog yéene wuñ leen ko mais dañ leen di ñaanal ñoom ñëpp dañ ñoo rangé wu suñu ginnaaw ren en 2024 bii ñu fal suñu bopp.